ñu leen di nuyu baax di ziyaara di baalu ak yàlla na booy jéggal aleykum salaam bismillahi rahmaani rahiim yusufa salaam mu wa maa ubari u duma koo xam ne damay jéem wone woon ak sella nafsi sama jëmm wala damay jéem wone ne ko mandu ci li ma gàntu ndaw si ndax li tax inna nafsa bakkani doomu aadama ku ci war tiitar te it mën na laa sakkatal ëllëg la ndax la am maaratum day sax dàq ci di digal jëmma jëmus ro jëmm jëmu ne moom bakkan ba bi so ci lu ñaaw su ko defee nag mën naa am boo tiitaroo tey ngir luñ la ooye war nga gàntu ko bu ëllëgee mën nga caa dugg illa ma rahima rabbi inna rabbi xafurun rahim e ñu nettali buur bi loolu buur bi ne i itoo nii bi istaxlis uli nafsi prisonnier boobu ñu jàpp moom depuis juróom-ñaari at ñu denc ay dossier atte wuñ ko génte gii dal nu mu firi ko nañ ma ko indil su ko defee man noome ko ci sama biir cabinet istaxlis u li nafsi ma jagle ko sama bopp du ko yobal ci benn ministre ndaw nga dem ñu defal ko autorisation pour mu dugg kaso boobu mu dugg wax ak yusufa ne ko président lay o falama kallamahu ba nga xamee ne ndaw la wax naag yusufa déedéet yusufa ñëw taxaw ci kanamu buur bi falama kallamahu ba nga xamee ne laaj na buur bi yusufa yusufa tontu ko xaale buur bi daf ko ne innaka naka yow al yawma li ko dalee léegi ba fu nu mën a yem makiinun borom daraja ngay doon la day naa ci sunu gouvernement aminun di ku ñu jox pouvoir la day na Yuusufa bi mu ñëwee buur bi déggoon na juróom-ñaar fukki lang Yuusufa de xale lool lang bu mu ko wax Yuusufa topp tontu ko ba juróom-ñaar fukki yi jeex Yuusufa làkk ko ñaar làkk yu mu déggul je am soixante douze langues buur bi am soixante langues moo tax falamaa kallamahu ba mu waxanteeg moom gis xam-xam bi ci moom la ko ne al yawma ladaynaa makiinun amin arab ak abrahama la buur bi déggul woon te yusufa dégg ko xaala yuñ ba ne ko comme noonu la te dugal noonu ci gouvernement bi yaal nii nag ma féetale ala xasaa'inil ardi ci économie bi nag ma jox économie réew bi ini man afiisum ku jub laa dama laal liñ ma joxul alimun ku xam-xam-xami économie la téere yaa ngi wax ne Yuusufa a ngi tiitaru te yàlla bëggul ku tiitaru ndax ku ba ku jub ku man ku man dérisie économe la ñu ne loolu baati tiitar la ñu ne déedéet wane sa bopp fuñ la xamul aayul te xam-xam boobu dañ ko réere woon wa kasalika nii ma la nettalee ne Yuusufa génne nañ ko ci kaso mu ñëw waxtaan ñu daal di ko dugal ci gouvernement ba makkanaa la ñu mayee moyen ay moyen سين سين ما ينجو سين سين ليوسف نيل يوسف في الأرض في مصر بيتبو لنا فرمنا ميها كيريو ما إيش إيش أو فكنا ما ينجو تير رسون تعاون رسون كيس رسون نعم نحن مي بريمير مينس خمجن نسيب دينا نجح نين يلا برحمتنا يسونو يرمن من نساو كنو صاب تولا نضع بني سنك أجر المرشنين يونو ويرفتا نين yii ma ko jox nag dafa nekk avance rek nde wala ajrul axirati dañ ko dencal ci àlaxira xayrun moo gën moo ëpp fuuf li si na ñeen ña nga xam ne amonoo gëm nañu wa kaanoo ñu nekk yetquuna di ragal borom Yuusufa ni ngeen ko xamee ci njëlbeeni ay sa isi bu jëkk bi ay doom bàyyi la am góor gu ñu wax yi ak xob waa leen jur yaquba baayam ibrahima ko jur yàlla defoon mu gàtt mu mu mu mu mu mu njaboot lool amoon na fukki doom ak ñaar kenn kaa ngi faatu ca ba ndeyam di ca ba muy mucc mu des fi nag fukk ak benn xale yi rafet lool waaye yuusufa seen rakk boobu yàlla def mu ëpp ci taar góor gi bëgg ko lool ngir loolu ndeke yàlla nar na ko def yonent ci ndawam mu tëdd guddi gis lu mat fukki biddéew ak benn yu koy wër mel ni dañuy sujjóot di ko nuyu après nag jant bi topp ci biddéew yi weer bi topp ci mu xëy neet lu ko papan ñu ko inni raaytu ihda asara kawkaban والسمسة والخمرة رأيتهم لي ساجدين بابنا كونك لا تخصص رؤياك على إي غروتك فيكد لك كيدا قلنا لي جنت جيبوك سفرين سنكون نت من لا فخر يوسف دنش جنت كنك دنشكو دنشكو دخلي نمي كنت سور bëgg bu ko baay bi gën a bëgg ñu wéet xel ko la mu doon wax fafa am yusufa daal dëgg-dëgg ina abana la fi dalaalin mubiin ndax la yusufa ahabu ilayna wa noonu usba yusufa sunu papa gën a bëgg te nun mbooloo la te moom kenn la góor gaam ci njuumte li may wax kat du bind bi ci ginnaaw bind bi la ngir ñu dégg fi nu toll et eh, bés ñu fexe góor gi mu jox leen xale bi ñu ànd ak moom dem àll ba ñu ñëw ne ko ya abana moo papa lu tax wóonu wóonu pour nu ànd yusufa rëbbi mbaa ñu sàmmi waaye arsil umaana xadan nartain wa nalab danañ koy jàng di jàng yartain wa yëlëwët bàyyi ko bu subaa mu ànd ak nun nu jàngal ko rëbb góor day ñemeñ àlla góor day xam fitna téere yi ne tont la bàyyi ba ton moo tax digganteem ak Yuusufa ñoo am juróom-ñaari at ñii ne ñeenti at gisante ndax tont la dafa mel ni lu metti yàlla def na leen bañu ko waaye indi la yaasu na niya an tas abo bi وأقاب أن يأكله ذيب وأنتم أن أقابلون lu ma leen koy bañ a jox ngeen dem ca àll ba sàggane ko te lay lekk ko yàlla na ko yuusufa yow yaay wax loolu yaquba yow yaay wax loolu waaw bi ngay fàttaliku càggante xale yi foot dañ ci sama farlu man ba ngay waxtu lay lekk ko ah ah sama wattu man li ma wattu mu ñëw te ñëpp maa leen gën a farlu comme yaa wax baat boobu nag xale bu du dee waaye di nga ko gëj a gis ma pinee la ko. wax rek la axaafu an yakulahu nit wa antum anhu xaafiruun xale yi nag ne ko léegi nag ak euh, li li may wax day bu leen xool bind bi de léegi nag ak loo bit wa nanu ba inaa isan la fi dalalin بنانا بينا رك دي فك دي مجالة بساقن بتل الليكو كوكو مصيبة دالو مخينك جرد بابو في بمورة في لا لكو دي كولين فون ياري لخي نكو عند لك سيمك وقالقوا أننا فلما صعبوا بي وشهلوا في القيابات الجب بندمي بجين تجي مكنكو يا يوسفو boo ñëwee nekk sama papa di fen rek waxatuma laa nga naan da nga gént ay biddiw fenkat bi dal dina ndongi tëll mu sëppa loxo yi majj wéq ko mu ne leen man day kóllëre gi ma déggoon ngeen wax ak sama baay yi de ñu ne ko tëjal si gën benn waay nag yosa la tudd mooy ca mag mu ne daal buñ ko rey day ñaaw laa taqatuloo yusufu astafurlah laa taqatuloo yusufa wa alqooku fi xiyaabati jabbi in kuntum faidin ndem fokk ngeen def te fokk ngeen def te mu leen a ñàkk def lu bon nañ ko yeew dugal ko ca teen bënn gële nga xam ne kenn rootatu ca amatul ndox bàyyi ko fa def loolu la ñu def ñeew wax yërmande ju de moo ko falewuñ dem na ba ne leen suma mbubu mi boobu bàyyi leen kook man ndax bu ma dee mu mu doon suma càngaay ñu ne ko bon nga dee de futtiku ndekete béjjin bi ci loos wi di nara béjjini gàllaaj mbubb may maam Ibrahima dugale woon ci safara wa da ko joxoon doom yi ñu di ko donnante ku mag yor ko góor gi nag yéene ko Yusufa defal ko ko ci déjji ni kooba takkal ko ci baat bi ba ko ci gaa yi sànni nag leen Jibril ñëw tekki ko génn mbuuma teraflaay ko ko gaa yi dem dans quinze minutes ñu dellu si waat Yusufa Yusufa mu ne ma ragal ne ma xalaat ne dañ ma yërëm moo tax ñu dellu si moom ñu rek xeer yi daal mais deewu naa deewu naa tiir tiir ba xalaat ne dee naa ñu ooma ma bañete wuy ndax naa li ma wuyu bi dikkal ma tànkam la de lànk nag yusufa ma lànk rek wajaa siyaaratan fa arsalo aridohum fi wajaa siyaara fa arsaloo waaridahum fa addalaa alquran ne minute jëgg ji ak si teg nekk leen rootal léeg-léeg dafa niroog teen bu màgget dama uti fa ndox mu ñëw tekk buum bi yónnee ca biir Yusufa jàpp moo tax sax waa ji yéex xam ne nit a téye bi ak yàlla nar ko musa sa fee مين من هذا بلا عالية بل الدعوة جدا إلى كف جدا بلا كف يوسف هناك مين يدفع موسى أخبار وقرن مملكة يلا نبتو دفع موسى سيئتو رفت نعم شو ما دون جاي بنكال سبارا nabaayi ah gor laa kenn du ma jaay banque sa baaraam waaye bu ma di majai, jaay banque sa baaraam waaye kon toog suma borom du ma néeg a jaay banque sa baaraam waaye don ko mu

ñu yóbbu ko jaay loolu siige ko mooy gént gi kenn xamul lu mu doon ñu dem ñu am ku dem mu wax gi indi ko nag o oh, mu ne leen nag fasalu maa baalu niswata allati qatta'na aydiyahun man dama lay mais na ngeen oo ndaw si ak ñi mu invité woon keroog ba ñu fa paaka di dog seeni loxo léeg-léeg leena leen mbir mi ñu ñëw xam nga lañ leen wax maa xat ba kun xam lu ngeen xamal Yuusufa isra watum na jamono ba ngeen ko sàkkoo mooy lu ngeen fekk ci bakkanam ak bëgg-bëggam ñu ne maa alam na lay buñ fa gisuñu koo xamal benn benn ak ca laana ak xasal xaaq bëgg a feeñ na feeñ booba nag la ñu yónnee indi ko et ñu jugé ko nag jox ko poste boobu ñu yor ko kon nag kom leeralal naa leen la jiitu arrestation bi ak jël poste bi mën nanoo jàng nag léegi jàll ndax lu ñëwati tàbbi foofu yi noon bëggoon nga daw wër këf ti ñetti yow da nga yeew <laughs> ma ne ko dama bëggoon nga daw wër kër gi ñetti yoon li soldat yi def bu ñuy maaj ba mu yàgg ñu gis kenn muy gëmante ñu ne ko fét fét vit bi nam xam nga faal xale yi nii ñu mel ci ñàkk yar dëgër bopp faale wu ñuy jàmbur ak seen bàyyi man day teg naa ko ne ñett ko junj jur ci réew mi premièrement ñàkk demati daara waaye sa bàyyi am fukki sàq nga dëñe di yalwaan loolu ko ci màgg mën a respecté dangaa gis doom mi borom soxna soo xam ne mu ngi ci daara ji bàyyi bi bëgg ci dul alquran maa ngi am sama taali bi yox picc ñii xam nañu ko papam dafa bëri woon i nag ñu jox ci daara daara ji sori woo seen kër daara ji bu ñuy reer dañ koy gées bu ñuy regg amul naar bés yaayam sàcce meew may ko ko papaam xaw na ko cee fase kii bu demee ba ñibbi kër baayam lu ma gis mën ko mu ñu tas daara yi xoolaal doomam mu ne man suma doom et puis reylu ma damay jàngalu nangam nangam te wax li Abdou Aziz daj xalifa bu baax bi ba nga sabara li ma ko ji ñaareel bi moo di ñàkk te def service militaire ci alxuraan laa nekk duma rëy ci expliquer ko ngir wane dëgg man nekk naa quartier benn caporal bu ñu makka yaa waa goa du duplu yorunu waa ji def géew def en cercle ne nañ fecc sunu caporal boobu gars fecc bàcc ci ñun ma gàntu fekk mu ngi taw taw ñëpp ñëbal ñu ngi ci biir garage bi man compagnie oto laa defe service moo tax ma teel am permis mu ne ma nag foog nga génn wër wër garage bi li ma doon wax léegi àlaaj kay génn daw garage bi quatre cinq fois ma di daw mu fab classe eh, fii xam dañ classe mobile bi mm-hmm. di ci sàkko du teg ma may daw mu xam bu dawee comme man mbugal mi ñoo koy bokk mu taxaw yor ay xeer su toll ak moom rek ne pas pas waajalee Seydina suma xol baa ngi tàng ba ma jooy su dara su ma yàlla defal nag ba xamuñ ne jooy naa daf doon taw taw bi ànd ko xam nga ñi kenn xamu ci koo xam ne du dara ñaare ngoog alsaan kàcce ko yaakaar ñu fëgg la tudd sa tur dip dañ naan pépépim pépépim rek nga naafila ndande moitié dafa zikki avant euh, euh, rappel nga léegi sa papa ñëw naan la diw diw diw boo ko faale sax nga nelaw ba ba huit café gu ànd ak meew dem fu la neex ba midi nga ñëw laaj ceeb bu ñu roof boo noppee euh, ñaan attaaya ñaar ñaata la wax bi ko ñetteel nag mooy njulli gis nga léegi daan nañ ci yar xale yi lool njulli njulli yi selbe yi daan waaye daan nañu fab laax xaax tundi ko tuufi ci ne lekk ko nga lekk ko yooyu yëpp dindi réy la yu jëkk yooyu nekkoon ci réew yi ñu dindi ko fi completement xale yi xamuñu dara fooy jaar ba mën a leen dara benn góor na ne ma gos si ñetti ba ñetti baax rek la ñetti baax ñu tibaa manaka bal mune bal bi waaw manaka ak bal mune bol bi ma lan mune ak bal bi ko ko du ko mën a jubanti faal xam nga ne yow mi li nga tay su doom yi duñ ko di sa waaju tu sur waxu ay ci waaw fal dëggal sax gars yi te fii ma ne ko loolu lu mu tekki mooy ma gay baa mi ma dara la dëgg la ci lu bon mi ma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 ku am xam-xam la waaye mu ngi ko mën a yemale ci li ma ko xamal walakin aksara naasu laa yaalamuun gaa yaa nga jiit leet indiwaal nañu bi yoon rekk yusufa wala maa daxaloo baa nga xamee ne nañu ala yusufa ci biir pale ba awa dal di féetewoo yusufa yusufa aqa u rakkam ji ilay jëm ci moom mu calcule leen ñu tool kenn mu boole ñaar ñu ne néeg rakk ji nag wéet pap nag seef euh, man de ah, bokkuma kenn néeg mu ne ko inniya ah, ana aquka ah, maa ngi laa déy ne maay sa mag ji nga dégg ne dañ ma sànni falaa tab ta bul tiit te bul naqaril nag bi maakaanoo yaamaluuna kooku ngeen déglu ko am na ñaari dég-dég lañ ma defoon ca teen ba bu mu la metti li ma nar a jëfanteeg yow itam pour nga mën fee des bu mu la miti nu dem ñu dalal leen teral leen fi la muy jihadihum bi jihadihim ba nga xamee ne préparé nañ leen seen bagage ñu tey teylu yàlla ñu dugal ci xayato weer ba buur bi naane fi réeli àq yi ci bagage yi rakkam fekk daf ko noonu ne

ñu ngi koy attee constitution yi fa mu dëkk moo tax bari na léegi ñuy dem màkk di sàcc te kenn du dog seen loxo mais boo dëggee màkk ñu dog sa loxo parce que suñu constitution du doggul loxo am déet léegi nag nii la ñuy def dinaa la jiñ càcc mu ne jaral na moo booy bii ne ko bu ñu préparé gis nga bagage ba ki ko moom sama frère la ñoo bokk ndey bay sama frère bi may naane midi dugal ko ci biir bagage politique yaa gën a ni nee ñu daal di def ñu daal di àq yi ñu takk gunge leen dem ba jënd saan torop dëkk bi wàññeeku ñu leen doon gunge tuuti lu ma dana daal di yéeni zanun aji yéeni ci biir dëkk ba jëmale yéene ba ca gaaya naa leen ayu toxal yooyo ey jëgg ji innakum yéen la saari xoonoy sàcc ngeen gaa yi nag kii ñii ñii ñi ñuy waxal ñu ne innakum la saari xoonu alquran ne xaalu jëgg ja tontu na waaye bi ñaata tont dañu tourné gileem yëpp jubloog ñoom wa aqbaloo ñu jàkkaarloog ñoom na leen maa sa tafkiroona lu ngeen nemmeeku sunu gannaaw ba du ñu jiñ càcc fi ngeen toog dafa baaxul alsan ñu dem ayatuhal ayoor innakum la saariquun gis nga firikati gént yi daa gis ñaari nit ñu bokk gént bokk lu ñu gént seen prix yu uute Abdoulaye Misiraan benn waaye dafa ñëw ne ko dama gént di nodd mu ne ko mu toog tuuti beneen waaye ñëw ne ko sëñ bi man de gént ma fi indi mu ne ko lan mu ne ko dama gént di nodd mu ne kenn ke yow di nga sàcc ñu dog sa kenn ka mu ne ko yow da nga bañ ko laajee ku ci nekk daf ko taawil ci alxuraan wa asil li naasi aji ak innakum la saariqun mu gis melaw ke géntoon di nodd mu di niroo ku ku ku ku jékki adi ku jubul mu ne ko yow da sa loxo ku yiw ki nag mu ne ko yow da dem màkk moo tax xaaloo ñu tontu ba ñu laata tontu nag wax balu ñu wëlbati gileem yi jëme ko ci ñeleen jiñ càcc na naa sa tab xi ana lan ngeen nemmeeku ba ji ñu ñu ne ko nafxidu dañu nemmeeku bi ngeen fi jógee shawaa al maliki popi buur bi mu daan naan bu leen na sonna nag wala man jaa ku ko indi gàddul nañ ko am li bairun sabab gileem wa ana man chaimun ma garanti salika loolu léegi colonel bay wax wala capitaine bi wala chef sant bi jiite daal ñi jiite daal alkaati yi dabu ji yor garanti bi ñun xam nañ ne yéen a jël def lii bu leen nu sonnal ku ko indi rek te sonnaloonu gaal dul nañ la charge giléem te man mi wax ak yéen maa koy dàgg rajo bu bees la man na noon dama de ba ñu noppi hmm? ñu continuer ba ay gars yi nga bu ñëw de ñoom itam buñ bu buñu sa buñ santee jaan bu ñëwee ah waaw kañ alsan sow alsan sow alsan sow nee na àndoon xàmmee naa ko alaaji bàyyi rek bàyyi bàyyi di nag si ñu jéem rek noonu jàngi rek déedéet def na indi te rek ay ay changement te def nañu retard baax na xam ngeen ne ma ji jóge wu ñu mag di na di doomi gor ba fii li nufsida ngir ñuy sàcc nufsida dina firi njaaloo dina firi nan sangre dina firi ah, nam tuuti sàcc yàq réew mi indi wunu fi nun xam nga gaa yooyu tontu léegi gaa yooyu tontu teeg seefi sàndarma yi وما كنا سرنون ونك سخ سارقين دي اي سج من باخنا لغي ما لغي فما جساو ah du ngeen sàcc du nu sàcc xam nga ne du jóge réew ak réew ngir sàcc si baax na waaw ma ne suñu ko wuyutee sàcc bi ne ci yéen lu ñu war a defanteeg sàcc ba fa ma jasaa'u luy payit ki sàcc yëf yi in kuntum ndéem dañ leen visité fekk kàddu bi na ngeen fenn ci li ngeen noon ne fabu leen ko ñu ne ko jasaa'u payu ki ko fab lu muy war a doon lu dul jasa u man wujida fi raalihi kuñ nga fekk sa bagage la ngeen jàpp ko foowa kooka ngeen xam ne mooy sàcc ba ngeen defanteeg moom nag jasa sàccu leen ko sàccunu ko waaw buñ leen visité fekk ngeen sàcc ko nag ngeen def ko ni ngeen def seen sàcc mu ne suppi leen enchère

nga tekki lañ lañ lañ nekku ci tekkal alxuraan nag nee na pour réerantal ba ñu commencé visite bi xam na ne bagage baa nga fële waa jekko yoon bu jugee directement jug ci jubal ci day feeñ fa badaa mu jëkke bi awayatihum ci seen bagage ñoom xam la bi ay àq lu jiitu mu laal bagage yi rakka ja tekkil du yow baal maax tekkil du yow baal maax ba kawar gi daj ñu ne leen xam ngeen lan la seytaane rek la woon baal leen nu dem leen du yéen ñu ne déedéet duñ fi jóge ah du ngeen di visité ba mu des kenn ngeen dina bàyyi visité leen ko moom itam ñu ne waaye matu ko waaye matu ko xam nañ ne ka affaire ci biir kon mag ñi fabuñu ko gos bi du ko fa bàyyi matu ko waaye dem du ñu fi jóg gor yu toll ni noonu kenn du ñu diñ si acca dëkk baa ngi nuy wër nu ngeen visité nu nuy onze ba dix-sept ngeen naan dem leen aywa foog ngeen ubbi bagage xale alxuraan fa badaa mu jëkke تمشي بعوايتهم تسين بقاسي قبل رعاية أقه بني بوش كلانتك دينكو بشتك دينكو بشتك نفاس بشتك وشو مستخرجها يجي نفر بنك من وياقي كاين السدنسك دون نون لنوخو لقي فين نشيوك xam nga lu gaay wax ñu ngi garaawal nag summa staxraja min maa'i aqihi xaalu in yasrax du nu bet faqad saraqa aqulu min xoob ci la ñuy jëm si taqdim la ak taaqir ku ne sa gëlloos ne bu sàccee du nu bett magam sàccoon la magam ka tey yusufu <laughs> ñu ngi def ñu ngi wax ñu ngi wax lu garaaw de in yasriq ndem sàcc na tey jii du nu jaaxal faqat saraxa sàccoon na aqaa u magam yaayam ay sàcc rek la jur yàlla ne yéen ñiy déglu que saalika nii ma la rëddale kii dina noonu laa utalal pexe yusufa yusufa la yàqee ngir mu mën a jot ci rakkam suppi leen jiñante du nun suppi nu suppi mu jëkk ci ñele mujj ci moom pexe la moo xam ne maa ko rëddal que saalika nii ma la ko nettalee kii dinaa la ñu fexele la fexele nun yàlla yuusufa ngir mu mën a retirer naka mu gaay ki ne du dem moy sacc bi rew mi nak ku fi sacc dañ lay jam lo juromi at duñu dag so sa loxo gravité am na de xalé yi waxante woon nañu seen papa dinañu indi waji léegi waji faf na des àll ak yusuf ñu jiital yusuf na leen àll yeen bu ngeen bo dem ñu jiital bun amin kon yeen bu ngeen bo dem ba nga xamé ne ñu in yasriq bu sàccee dunu bett ngir faqat saraqa sàccoon na aqun magam min qablu lu jiitu tey maa ngi bëgg a yëkkati lu naqaree dégg ngeen bàyyi ko xel fa asaara yusuf yusuf wax ndànk wax bu kenn déggul mooy chef bi moom la ñu jiiñ ak càcce ji ñaane ci doomi yaayam yëpp ak càcce ak rakkam ba ñu waxee loolu nag fa asara wax ndànk ku wax ndànk yuusufu fi nafsi yi ci wax joo xam ci boppam la yem dégg ga makaanan palaas ci sàcc bii ngeen di wax sàcc ak yaayam ci kaw te la moo tax ma noonu la déglul aaya bi bu baax أنتم سر مكانا ويتأثرها يوسف أنتم سر مكانا ولم يبدي لا su sàcc yi ba ngeen di wax ak mbonam ci cih, yéen a ko gën a bon yéen ñi ante na fab seen rek maanaam sànni ko ci gij ci ci teen nu dem gars wallahu yàlla aalamu aji xam nee naa la afala tafdil kenn du ko tëggal yàlla jamono bu ñëwee siq afalu tafdil da koy def ismu fail wala yàlla alamu aji xam bi ma tasifuuna ci li ñu doon mellal te du dëgg ci ji yusufa sàcc am na ñu ne yusufa yaa dafa mos a sàcc nen yaayam ci ngudem mooy sàcc googu ñuy feeñal foofu ñu ne déedéet maamu ma amoon xërëm di ko jaamu mu sàcc ko sànni ji ñu ne déedéet dañu ñaaw làmmiñ musul a sàcc ñetti wax yooyu am càcc giñ koy ayu bële ab nen dong la woon bu mu sàccoon yaayam wala boo xërëm la mu maamam doon jaamu mu sàcc ko sànni ji sax musul a jaar ci càcc yéen a gis waaw lu des nag tiinuwaan ah gaa yi des waa jàng kii loxo ñu ngi ko naan yaa ayuwal aziz xale bii nga téye ina la ñeel na ko abban baay seyxan mag la kabiiran gu naax xam nga na ngay def dimbali nu foqus jëlal ahadana kenn ci ñun makkaanu woo palaasam remplacé ko ñoom ñu yëpp ko baayam li tax ñu dal la ko naa ñaan nag mooy naraaka gis nañ la nga yor jikko yu joo xam ne jikko yu minel mosinina la lu buur bi tontukaay yi maa la laa maa ngi muslu ci yàlla ci lan an naquba ma téye illaa man dara ka nga xam ne wajjada naa fekk naa mataana suma bagage indoo ci biir bagage am i naa man su ma jàppee ku ma jëlul izan bon la waali moo na bokk naa ci way ah, faal ndax dégg ngeen ay bu baax gars yi dégg ngeen bi xam nga yuusufa waxul ne munumaa jàpp dul ki ma sàcc alsaan yuusufa waxul ne munumaa jàpp dul ki ma sàcc kon du wax dëgg parce que bi sàccu daf ne munumaa téye lu ki ma fekk sama bagage biir bagage waaw macha maa ngi mos a na ko su ilaa ma wajjat naa ndare ka nga xam ne fekk naa mataana sama bagage indoo ci biir bagage am waaye waxul ne mënumaa tey lu ki ma sàcc bu ko waxoon juum xale bi sàccul ñoo ko ko xam nga gaa yaa ngay bëgg a jaaxle ñu ngi ci conversation buur tinnu ci papa mag la nii la demee naa demee mu ne yàlla tere may téye képp ko xam ne fekkuma sama dara ci ko ñu falammas tay xasoo baa ñu naagoo ne li ñuy tinuwaan duñ ci jot baa ñu naagoo min hu ci jot ci bunyamin xalasoo la ñu benn ñoom i neen sempeku nag gisante dem fële na jéen di déy nag nag luy pexe nag ñu ngeen di xaala wax ne kabiroom ka ca mag mooy raw biin ne mu yéen xanaa da ngeen def na xel ndi nekk ci ñibbi di lay bay alam taaluma da ngeen fàtte ne ana baakum seen bay xat ak sa defante woon na aleykum ak yéen maw si xan euh, garanti min allaay koo xam dañ ci boole wër giñ yàlla min qablu ba min qablu ak ci yusufa itam ومن قبل ما فرتم أكل لجيتو جف جنيا جنين ديفال يوسف خاما كان دي واي من دي دوما ген مصر من دي فلا نبره دوما ген مك أرض مصر أتا يعصنا بل بتجخ لي نيل ما أبيس ما ني بيسي أو يكو ولا دوغال الله يالا لي نيل ما ما دي في ني سول ما لي من من مكو لا خان نيغا فلك دي ديو E, yéen mën ngeen a dem irjoo ñibbi leen ila abikum fekk seen baay lay bi gàtt fu xulu na ko waxoon ko ne yaa abaana sunu baay nat na kat so kat du ñëw ndax lu tax mu des àll saraka dafa sàcc ñun nag wa sayit na mënu ñëw seede illa bi ma allim naa dara lu nu xam te àll ba la ñu dabe bi fekk ca ci gi moom bañ ngay giñal nag ne foog ñu indi ko kuma kunaa nekkunu woon hmm? xaasisi na di mën a xam leel xay bi ci càcc gii mu def da dina ko def <laughs> alaaji ga yaa ngi dégg papa nag mën naa am doonu gëm waaye was al laajal xariyati waa dëkk bu dëkk kenn du ko laaj laajal capital ba ba xam ndax li nu wax dëgg la am laajal iira njëgg ma la si njëgg ma nga xam ne aqbal naa ñibbisi nañu fiyaa jóge ci capital ba muy kanaan laaj leen ndax xale bi dafa sàcc wala sàcc boo leen nga xam ne wa inna la saadiqun góor gën a baax na sa walaat rafetalal na anfusukum faay jàngoog seen xel ak seen xol ak seen bakken rafetal na leen amran pexe ngeen fexeel ko sama doom waaye du ma saali de fa sabu ndinama muñu muñ jamiilun gu rafet rafet eseen la amaana yàlla an yatti yene mu indil ma biim ci yuusufa ak rakam ji jamian innahu nag yàlla woo moom ali mu xam na sama mbir hakki mu koy dugal mbir mu ne fu a dugal la dal na war a jox leen wa tawalla mu du anum ci ñoom boole ko ya asafa ya asafa ala yusuf maa ngi jooy sama lakku xol maa ngi jooy sama witti sama sama mititi wéttal ala Yusuf yàlla ne continué sa jooy yooyu wa abyadat bésil maxal ay naaw ñaari nagi bëtëb yi maanaam la ci ñuuloon weex bu la ñuuloon bu weexee dootoo gis muy gumba xalaar min al usni ngir naqarlu fa woote moom kasi mun mu ngay góorgóorluy jéem a nëbb la mu nekk xale yaa ngi koy jëw ñoo saay-saay xaaloo ñu nga naan tallaahi géñ nañ ci màggu yàlla ne laa tafta udu dañ tadkuru di misère lu yuusufa ata takkoona bélbétu muy xëy a aradan dib niiw rek bàyyi leen ko foofu rek muy jooy dina métti lu xale bi ba dee aw takkoon min alikina wala mu xëy bokk ci way alaku ña mu ne doom tëj leen seen gémmiñ man jàmbatuma leen inama asku دنما توت بس هي سما نقر وأسنك سما جقر إلى الله وإعلم خمنا من الله شيء علم ألا تعلم ونولو من خم خم قلنا ينف بوهم خد جلو وات لين بشك وات لين دلو اذهبوا دلو لين فتج... فتجسسوا فتحززوا دفع عملو جمخ جاسوسوا ak lu ñuy wax xasus ak lu ñuy wax namus ak lu ñuy wax banas gouvernement bu ne dina ko am jaasuus mooy kuy seet lu ñu xamul fu mu ne wala ku ñu xamul fu mu ne wala ku ñu xamul ku ko def nga di ko xool nag doo ko xoolee laaj bët nga koy xoole kooku moom la ñuy wax xaasuus jaasuus nag mooy koo xam ne day laaj kana kana féréer bi duñ fi jege fi ñuy jaar ku ci ne agent secret la waaye kii ci bët lay seete kii mu ngi seete ci nopp ci yaasin bismillah ñëw nga عاجل خليه ينجي ana namus namus mooy koo xam ne naw la waaye du indil gouvernement bi du indil président lu dul mbégte ne bu namus xam nga si mu ngay nettali fële ci ba Jibril gisee te nabi dem di ko nettali Xadija te Xadijatu ne ko loolu daal ootul jinne la te xari yaraa xur moom mu ngay dugg xur mu ñàngal waññe nañu ñi fi ñi fi ñi fi jom mi dof ak ñi fi jom dee du jeex tere woon nañ la ko nag ne bi daf daan def bu xëyee préparé yóbbalam dem dugg xaari ira boobu alxuraan ñëwut waaye muy xalaat ci xalaat ci boppam asamaan ni mu demee suuf ni mu demee waroo ñàkk borom bu yóbbalam jeexee mu ñibbi fa la ko jibril jëkk fekk nag feeñu ko nëbbu ko nag ñuy ñëw nag di werante malaayka laaj jinne la خامغا شنو غورغو باغي يالو كو يالا تيو تي كيف دين ييب اقرا لك waaye ci ndeetal ya, weer bi la takk nag grâce bi discours ba mu àndal yaay baa mu des nu bi ey waa jëli xadijatu wax sa jëkkër ji mu bàyyi pax mi bu dem bu yóbbóor jant sooy mu ñibbisi bu dee ñaari fan mu topp ba ñaari fan yi jeex mu door a ñëw ba jib ko ko oo bu téenee seetlu ne ci jëmm ji di jëm ci jaww ji jibril rek ñëw carrément pour indi nu boot bi tes del tax mi Moustapha ne bërët ne day génn mu tas ko bor bi mu jaar ci bor bi mu tas ko te ñaari mbagam yi naaj ko ne bi àgg su mu ci ko ne ko iqra xam nga maa raaxtu maa dinay firi laaj dinay firi bañ Maodo nag ne ne maa googu moom mënu ko bañ ci ni ne bi bëree teggi jàngal mu ne ko luy jàng loolu la d'accord waaye jàngal duma jàng waxuloo buy jàng xamu ko ci ñetteelu yoon ba nag la ramassé bagage ba fa daan yàggee fan yi fa daan amu amu ko bëreet daw jëm kër ga jibril làqu ko mu daw jëm kër ga jibril làqu ko mu ne dareet comme xadijatu topp na ne fukki at juróom ñett ngir yaakaar te la muy yaakaar ku ko te xàddiwul doon jëkkër bu soxla jotee doon jabar bu service jotee bu service jotee xadijatu di jabar muy fóot mooy ba mooy togg bu soxla jotee muy jëkkër mooy faj aajo yi boobu sëy na xari na bu soxla ñëwee ngay jabar comme nag yàlla bëgg na ko bëggalee la mu jibril daqatal na bi rek wàññi tànkam bu ci néeg xadijatu ca perom ba xadija ngi toog te ebbey di dindi wetañ wi fa la ko narmeeli boppam ine ci biti foofa nag la wax ne dooshiruuni dooshiruuni ñi ne ñi ne def ne zammiluuni dooshiruuni nag mooy yaay waa mu desir زميلوني ما يبقى مسميل دس رو سانغلي فيل زملو سانغلي فيل sëmlu mooy ku sangu ba sangu boppam ñaare kuy nelaw guddee ko def desru mooy ku sangu te mu yem ci yeeram ci weenam ñaare kuy def geste moo koy def lu tiit ñëw uuf ko konoon la mun a ko dafa am lu ma gis Xadijatu def ko nii da ko yaa ngi koy gis mu ne mu ngi ñëw na ñëw na ñëw na ñëw na di wax Xadijatu jàllale ko ci bor bi yaa ngi koy gis mu xulli bët yi yuuxu na ñëw na ñëw na ñëw na Xadijatu nag dégg na ne jigéen boo xasee sëy waxne wa kaana badxan allaau bilqilaa'i qalaa'i ilaa an jaa وكان بننا له بالقلاء إلى أن جاء بالقاء القدس لم يمم وكان نكون مصطفى بل أنت جلبين سندكك القرآن جبريل ala ubbil xawaa di jëmm ju sopp wéetaay wéetaay ko gënoon wéttalu di dugg nag ci xuru moomu di ko def ilaa anjaa ba fekk ko fa kan ruux jibril al qudsi ma di mu ñu sellal te booba jamono nabi gëmmantuwul nelawul mu ngi ne jàkk di xool fa qaal iqra xamula woy wi ci tegu xaala moo ko xamee woy ko xamu ko xaala mu ne ko kax jàngal mu ne ko maa xarax du ma jàng mu ne koy xarax jàngal mu ne du ma jàng ca yoonu ñetteel ba nag la ka ne iqra bismi rabbika antal xaatimu nusami wa xatahu lil buluq ñett yoon ñett na ko bàyyi ko ngettaat ko bàyyi ko ba muy ñetti yoon ci la ñu waxee bu ne am na droit dóor élève ñetti yoon ndax na bi passe wala ji biir foofu ba nga xamee ne nag nee na ko li tax ma di la def lii moo di ñi yàlla yónni yoon yaa koy sot yaa yaa leen di mottali yonent bi nag dal di ki nag ne bi dal di war a ramasser bagage bi nag daw keroog bay alaaji Malik ne ak si na ci kër gi heure bu mu daawul mu ngi àndandoog tiit nag àndandoog di xool ca kaw àndandoog di wax sàngaleen ma sàngaleen ma dëkk bépp daje waaye Moustapha niñ ko yaakaare woon xale bi ndaxam yàqu na mos ndaxam yàqu na ndaxam yàqu na li tax nag ma jàll fa taxasaso ci laa nekk ndax naamuusu Moussa ak taassasu ak tajassasu moom lay leeral moom yóbbu ci Chira ba nga xamee ne coow lu bëri na euh, kii yàqu na dafa takk ndiggam puus nit ñi ba ñu sori mu tiim ko na ko xamalu xew de waaye du du rab du jinne rab du la laal mukk jinne du la laal ni nga goree ni nga mën a sàmme kóllëre ni nga mën a bañ a seetaane koo tane lu yàgg yàgg xamalu la feeñu daal di takk daal di sol robbam takk ndiggam yëkkati ko ba mu jóg mu ànd ak moom dem ci frère papa mu di war a xatut na ndaw fa ñëw ne ko sama jëkkër dafa am lu mu gis جاءت لورقة تحكي تحكي ما رواه لها وقال الناموس موسى فاكي فابتسمي keef gi foog nga masque suuf ndax jigéen ngay wax doomi càmmiñ yi dafa am lu mu gis mu ko lan la na bi nettali ba àgg war a xatu ne ko jógal taxaw bi jóg taxaw mu foog loppam day jot bi teg ci diggante ñaari faari ne bi dégg lan waaru nu bu wati yi def kër kër kër kër ni géej goo xam ne géej dafa sabarax mu tourné ko foofu loxo càmmiñ bi teg ci noppi càmmiñ bi mu dégg asrar risalatu yi di gën di yëngu foofu mu dégg ko xool ko ne ko kii lan la ci yow mu ne ko mooy sama borom kër bi ma lay wax papa mu ne ko muñal fabtazimi am nga gën gi jëkkër xam nga sa jëkkër li ko feeñu lan la mu ne ko mu la naamuus naamuus nag moo daan ñëwul Moussa moo daan ñëwul Jibril moo daan ñëwul Ali moom nag fa sa boo leen téere yi fa taasasoo wala tey asu min rawillah delluwaat leen te làmbaatu doom bu leen naagu yërmande yàlla mën naa am Yuusufa ngi dund mën naa am rakk jaa ngi dund gaa yi bi du dëgg ñu ñëw nag falammaa daxaluu alayhi yaa ayyuhal aziizu buur président masanaa laal nanu wa ëllëg naa ak sunu way jur borru toog xiif wa jéenaa dellu si nañu ba bidaatin indiwaale piri mus jiitin bu lamba lamba ndax la baax ci sunu dëkk yëpp jaay nañ ko prix bi ñu indi yoon dërëm yu ñaaw la foofu matalal lanaa ñeel ñu kay la wata sa dax alay naa te nga déema du mooyu ñàkk baaxu xaalis ina laa yu ci mustazir fa defe foofu nag la yéen yusufa dara feeñ fekk yusufa bi xale yi demee nettali seen pàpp ne waa ji yu chef ba gayante na bunyamin daf ko sàcc ne du ko bàyyi ku bind leetar ne ko dégg naa la yow mul ku misra ne da nga téye sama man du ma jur sàcc de man yonent laa néeg laa nag boo xam ne néeg bi ma juddoo bari na nattu amoon naa maam mu ñu wax Ismaïla mbaa Ishaq ñu di ko rey amoon naam maam mu ñu dugaloon ci safara ci néegi nattu laa judd waaye du jur sàcc maa ngi gën a tuuti sama doom yooyu bu ma ci jotulee dootoo dootoo nguur a ngi yem ci yow ba ilaa yoma xeer xale yi indi bi jox ko buur bi mu jàng ko ree xam na ne kat papaam la mais papa bi xamul ne ki muy bindanteel doom ji la wëlbati ko na ko mu wëlbati lettre bi ne euh, buur euh, góor gi Yaquba jot naa sa lettre maa ngi laa gërëm te di la nuyu dégg naa li nga wax ne da nga néegub nattu nattu nañu sama maam Ibrahima nattu woon nañu maa ngi laa dénku nag ñooñu ñu nattu woon nañu mu ñëwoon nga muñ ko dañ <laughs> leen nattu woon dañu mu ñëwoon xale yi nag ñëw na leen waa ji bu ñu ci sàkkule pexe duñu jot ci xale bi te bàyyi ko fi musiba la ñu àndandoo nag waa kër Yaquba ñu bari dool lañu daal nañu def ko ci mer ay kawar yi génn ci sa yaram yoo xam ne mu ngay ñëwee ni rab gën a dëgëru rëñ gu ñuul ñëw na ko buur ñun kat maslaa nag nañ ba tey jox nañ la nit nga bañ wax nañ la wax góor gi nga bañ léegi nag xale bi dang na koy jox ku ci mer nag ba kawar génn ci yow liy tax kawar gi dellu mooy ku bokk ci kenn gi laal la bu la laalee rek nga gis kawar yi dellu léegi nag yi yaay yëgal gos bi foog nga jox ñu ko far force mbaa ñu yuuxu ci dëkk bi xaa ci koo xam ne jigéen ju fi ëmboon dina yàqute góor dootu fi dese ma Yusufa nag daal na ñokket nee na yéen dégg naa gerte ba ne Yanquba yi ñu fonk seen bopp ngi dafa ngeen ne góor yi àddina yëpp yéen ci man dama bëgg a capital bi balaa dix minutes ngeen génn ko bi ma waxee loolu nag kawar génn ci moom Yusufa kawar yi génn ci gaa yi génn ci Yusufa doomu Yuusufa ju ndaw ju doon jooy ñëw laal papa bi kawar gi dem gars yi di sit kii kat dañ seet meneen pexe kon gars yi ñu taxaw foofu wuyu tisbaar ji suñu àggalee sëriñ bi may nu ñu jekkale saar bi dugg ci waxtaan bi du noonu ku fi indi bàkkaar yàlla naka yàlla teg amin ci barke góor ku fi indi aaju yàlla naka yàlla faj تيالين في تيزيبات أيون أيون أيون أيون بجاي سيد الأولين والآخرين ما كان يمين كونات سرين بي قالوا رفت لنا يوم كلمة أو جتو لا أم بيكو جيو كن جتو لا أم بيكو فن فن جتو لا أم بيكو بيال سبت فنيخو يال لقد ديت سبت دجاي دي fab sa bët teg ko ci alquran fab sa nopp di ko déglu boole ko sa koor dëgg yàlla yaakaaru na lool yàlla bu yàlla tas yaakaar góor gi di fexe lii moo xale lam yi yàlla neen yàlla yokk doole bi jaayi rasulillah amin seetulaat leen nguur